du la wér. Oh jàpp na temps de. jàpp na temps. oh oh. maanaam oh. Daara eh digal na ko fa. ndeysaan. ndeysaan. dina ko jàpp temps fii ba pare mën na koo continuer. oh bu la ko yàqal waay. ama wannan suka rabu wasu ama da za a duka burawa yi nono ama wasu alayi ne wagun mani gurfa wasu ama ama wasu ama ama wasu ama ama wasu pep a wasu ama is ama yeah ama Dos, dos, más, salud. A tu Thank you. waaw maa ngi nii waaw kenn ko jaawale waaw yal mun bu xees bi loolu dafa yaa ma gën a xam ay mbir waaw ay mbir la waaw mais pare ngeen daal kan pour sos sëgguma ak moom dara sëgguma sax bu bëre laa sëgg ak dóor ba mu tëdd laa sekk ak moom. Eh, waaye ndaw Sakho. ak moom ay bëre de sekkuma moom ay bëre dóor ba mu tëdd. mais yéen ngeen jàpp nii. yéen li ngeen yaakaar est-ce que du si. xale bu ndaw xam nga li ngay wax yow. waaw gis ngeen sos. njaago bi laa lay wax de. njaago bi laa lay wax de njaago bi. njaago bi ah. ku ko am da nga koy bàyyi xel. boo ko amul tamit dé yaa ngi koy dégg ah. dof bi. Hmm. dégg nga la jos moom bu mu def dara na taxaw rek. Hmm. bu bëree daanu. lu lu mu def daanu moom na taxaw rek moom moom si moom la dépendre moom na mel ni moobul rek waaw bu defee tekk rek tekk da koy won yoon mm. waaye bu nee rambax day dégg paccax eh. waaw olof Njaay nee na yow ku lay taaxulee la yow ku lay wele wele maanaam bu dee mbele mbele rek am fi wàll dañuy wax tuuti jëf lu bari njaago bi sël kese amul leneen eh. Eh. mais yalmin bi ah. eh, nee nga doo wax ak Jos kon dañuy ñëw ci ki nga xamante ni moo di Ada Fass def na open press am wax benn kàddu ba nga xamante ne ci digganteem ak liis moo tax muy wax ndax keroog ku ne gis ne li nga xamante ni moo di 2S li fa xew mu delloo avance bi ne man booy yi digaluma leen ñuy xeex ak ñuy lii ñuy laa kaddu yooyu bi ngeen ko déggee naka la leen def waaw kaddu yooyu noonu si gis-gis rafet na si gis-gis dëgg naa ko trop rafet na trop si gis-gis quoi mais xaw ma au fond ba xam dëgg la quoi. Hmm, hmm. waaw. laay dëgg la rafet na quoi kàddu yi mu wax ni rafet na trop te loolu lu am la mais mais gëmu ni gëmuñu au fond ba xam loolu dëgg la ndax nit daa lëndëm. Hmm. waaw doomu aadama daa lëndëm quoi. maam nit da nga lay taxaw di la sin ay bëñ fekk na waaw. am na ñoo xam ne dañuy affiche ak ko bay def endo quoi. waaw noonu la demee nag. waaw ñun duñ waaw jàpp nañ lu mu wax mais du du 100 pour 100 quoi waaw. ñun wóoruñu ba xam loolu gëm na ko waaw gëmuñu ne nekkul loo xam ne ñun gëm nañ ko quoi waaw mais lu mu wax nag rafet na trop kàddu yi rafet na trop macha allah mais wóoruñu ba xam loolu dëgg la si moom quoi waaw. waaw ñoo ñëpp ay jàmbaar rañ daal waaw ñëpp ay jàmbaar lañ waaw ñu ñëpp ay jàmbaar lañ dëgg doomu jàmbaar lañ daw ñu si dara la trente ak la six ñoo ko fa am bilaay walaay ñaari njaawe kase njaawa tàmb yi ñoom la ñuy topp bilaay walaay dara du xew ba ba booba